il faut nga bàyyi ko ñëw fii. ah loolu du yomb de. ah mais maa ngi leen di. ñu ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax. c'est vraiment un plaisir fay di am mbégte. Mhm. retrouver leen ci émission matinale bi. ma fekk fi samay soppe muy soxna Fatima soxna Oulay ak soxna Zeynab yéen ñett yëpp ngeen ay jàmbaar di def liggéey bu am solo ci paysage médiatique bi. waxtu bu nekk yéen a koy def ak lu ngeen ci rax-rax touche d'humour mais yéen a ngi koy def ak fulla ak fayda loolu dafa am solo trop macha allah di nuy sama soppe boobu yàgg nañ déggante wax na dëgg mais tey la ñuy door a gisee yaakaar naa ay ñaari at ñu ngi déggante mu nekk nit ku laa biir di ñu suivre saa yu gisee ñu def benn sorti wala mu jàpp ne lii mënoon nañ ko rectifier dina ma woo na ma diw soo ko mënee wax lii ak lii ak lii te loolu lu am solo loolu générosité la teraanga du xaalis rek. yaatu ci la bokk te moom mi ngi koy wane waxtu bu nekk di am mbégte retrouver sama soppe bopp ji bi moom moom moo ma ñemee yee matinal bi heure bi di nuyu internetu Sénégal set yëpp di ñaan yàlla waxtaan bi nekk njëriñ jërëjëf. ci conférence politique bi nga xam ne rek jotoon naam démb fële ca Grand Théâtre di rek nag euh, mbir moo xam ne gannaaw mobilisation bu am solo ñu gis nag Sénégal set amal fa liggéey bu am solo mm-hmm. direct euh, boo xam ne nag tàmbali nañ ko gannaaw ba di jotee jàpp ngoon dara daggu ci lépp tegee boor normal di leen ci gërëm bu baax a mm-hmm. baax ak reporter yi nekkoon ci terrain bi euh, bokk na ci kàddu yoo xam ne nag Ousmane Sonko yëkkati na ko mm-hmm. ndax nag ginnaaw bi mu fa teewee en tant que leader bu parti Pastef la mu yëkkat ci ay kàddu tey boo xoolee xët yu njëkk yéenekaay yépp gis nañu ni ñu xëyee menace mm. ak yenn yoo xam ne daal euh, amaana est-ce que bokkees nag ak li nga xam ne yëkkati na ko foofu démb waaw xam nga démb ñun ñëpp ñoo suivre ndoo sorti wu premier ministre bi mm-hmm. mu doon wax en tant que leader du parti passif mm-hmm. nekkoon ndaje boo xam ni euh, kuréel bi dajale jeune parti muy GPS mm-hmm. à travers Ngagne Demba Touré ñoo ko organisé woon mais xam nga lan moo doy war Euh, li presse bi titre tey à la une boo xoolee bizarrement démb sympathisant wu Ousmane Sonko yu bëri anticiper woon nañ comme quoi loolu la presse bi di yeewoo tey. Mm-hmm. est-ce que presse bi duñu xoolaat seen bopp. su fekkee ne su benn fee amee nit ñi mun nañ anticiper wax lu suba lan la presse bi di titre à la mooy xam nañ ne presse boobu tëddeewul njaaxaanaay xam nañ ne presse boobu des fois du lépp nag am na ay commandes yu ci xam nga bi président Diomaye toogeeg léegi dafa am une partie de la presse buy xëccoo posture chef de l'opposition mhm. boo xoolee ñoom ñooy gën a opposé wu sax les vrais opposants est-ce que du dafa am ay opposants yu tayale seen combat bàyyi ko ñenn ci presse bi mën leen ko mëneel surtout te loolu boo amee du ma bett ndax bennoo boo yaakaar et à un moment donné au lieu que ñu janoog Ousmane Sonko dañu bàyyi woon combat bi presse bi et loolu bokk na ci li leen perte loolu le pouvoir parce que bi ñu bi ñu tayalee seen combat bàyyi ko ak presse bi bàyyi ko ak yenn waxkat yi. pendant ce temps mi ngi massifié wu di occuper terrain bi. moo tax dañ dem ba beneen sax nekkatul woon Pastef ak Benno mais da ngay sentir ne Pastef la ak l'État wala Pastef avec la presse moo tax bi Pastef Benno waroo janoo. maanaam Benno matu il faisait plus le poids. parce que boo fekk na Pastef romb ko. mooy délégué nañ seen combat durant des années muy FDS yi muy press bi. Hmm. contre Pastef en ce moment là ana Benno et da ngay sentir ne problème boobu la ñu am bi ñuy dem élection ana l'appareil de Benno da ngay gis ne boobu disparaître na. Hmm. donc ci continuité boobu rek ci la nekk ñooñu délégué woon seen combat bi nekkee au pouvoir ñoo nekk tey opposition jël seen combat délégué waat ko ñenn ci presse léegi nag dans un pays normal nit kuy wax ne presse responsable am na loo xam doo ko tiitare mukk aman man damay wax ne Sénégal buñ nekkoon guerre yàlla tere. Mhm. di nga gis di nga yow gis presse bu tiitre na commandement bi en faille. ordre yi baaxul armée defeyan nangam nangam nangam na alors que lool en temps de guerre dañ koy ay parce que dafay sappe trouble moral yi. moralu trouble bi plutôt mais ñun suñu presse bi. Mhm. malheureusement dafa dese nekk républicain. Mhm. démb Ousmane Sonko wax na ak stylam ni muy waxee. mooy moom bu génnee wax du lees. maam du bàyyi kenn indifférent ci li muy wax. Mhm. ñëpp danañ am ci luñ ci taxaw. Mhm. léegi nag ñi ngi nekk di retombé waat ci benn piège mooy moom mooy dérouler tempo bi au lieu que ñoom ñu imposer ko benn tempo moom lañ bàyyi mu imposer leen tempo comme bi mu nekkee opposant ni mu leen imposer woon tempo boppam léegi nag su boobaa yow doo ko dabe yow da ngay suivre. malheureusement. mais est-ce que distingué nañu posture bi nga xam ne moom la taxawee démb di euh, pas premier ministre mais président bu parti mm. Pastef. waaw xam nga foofu presque dañu ci am problème mooy dañ yàgg xeex Pastef ba en un moment donné xàmmee wuñu Pastef ak l'État gis nga l'affaire du général xeex bi ñu doon xeex Pastef moo tax ñu saraax ba tiitre loolu fàtte nañu boobu état la ñuy la mm-hmm. mu am retombé yi ci am ay convocation suñ bàyyi woon xel ni ñoom Pastef mooy seen adversaire. du ñu dugg ci domaine privé boobu nga xam ni président de la république prérogative am la kenn amul loo ci wax. Mhm. mais gis nga loolu moo leen tarxiisoo bañ dugg foofu. léegi nag man li ma jàpp mooy mënul continuer ci rythme bi parce que à un moment donné foog presse bi jël seen responsabilité xam ni ñi ñu doon xeex ñi ngi au pouvoir boo ko fragiliser l'état ngay fragiliser terewula def nag surul. Mhm. Pastef tamit xam ni ils sont au pouvoir. amuñu pour beddi benn presse nday ji seex lañ dañu war a tëddee ñëpp mais boo xoolee problème bi lépp lépp ça tourne autour de financement suñu presse benn problème la muy problème financement xoolal coow li lan la impo mhm. financement day ñëw. yenn postures yi lan ngay dégg dafa am yenn homme politique yu nekk ci ginnaaw presse. maanaam mhm. presse bu autonome financièrement lañ amagul. donc financement bu presse bu dëgg-dëgg mooy problème bi. kan mooy financer presse groupe de presse kan moo nekk seen ginnaaw yan motivation la ci am parce que pourquoi pouvoir bi changer rek mais médias yi bëri na la dem nañ fay alors que y' a même pas deux mois wala trois mois ñi ngi doon xëccoo redivision wu euh, kan bëggoon ko xëccoog RTS. Mhm. muy ay centaine de millions. deux mois trois mois après nga dem ngeen fay mënatoo leen fay impôt la problème c' est quoi pourquoi aussi presse bi allergique critique jàpp na ñoom kenn warul leen tudd. Mhm. boo toogee ak ay journaliste mun nga wax ku nekk mun nga indi chroniqueur mun nga indi homme d'affaires mun nga indi ku nekk xas. Mm-hmm. mais boo nee presse rek nga dégg ñu la ah, ah, ah, ah maanaam kenn du tudd mm-hmm. presse. ci dëkk intouchable liberté de la presse. ah mais liberté de la presse ne veut pas dire aussi wax lu la neex def lu la neex. Mm-hmm. xam nga presse bi dañu am seen statut spécial kenn du leen tudd. jàpp nañu impôt waruñ ko fay tay entreprise lañ mais loolu kenn mosu ko gis yow say employé dañuy liggéey ngay dagg ci seen salaire na yaa ngi leen di nattal IPRES mais yow ndekete xaalis yaa ngi koy détourné yow xolo final Ligue des champions boo am nga dem toj nañ ko d'Ivoire 4 4 0 kilomètre ngay dawal train de vie bu extravagant nga yor mais say employé bu ñu leen convoqué dig ay bus Tata la jël employé yi nekk ci groupe de presse yi ñoo war a solidaire xam ni patron yi ñooy problème bi léegi nag patron yi ñooy jël employé yi na leen homme politique yi Pastef wala Ousmane Sonko respecté wu leen non non problème bi du Pastef ak employé problème bi c'est les patrons de presse amul ci kenn ku ci nekkul ci benn luxe di dund mais xolal seeni employé da ngay gis koo xam ne par exemple benn période bi ñu lay wax na la mi ngi am problème mu fay ay employé mais yaa ngi koy dégg ci ay dons muy may ay dix millions trente millions loolu lan lay ndurul lan lay nurul sa employé di la yóbbu procès pour benn 3 millions boo ko war a fay pendant ce temps là yow mun nga may 10 millions ci àll bi donc problème bi dëgg-dëgg presse bi c'est les de presse mais la presse ñi ko composé c'est des gens dignes xam yu am gëm-gëm. Mhm. yu bëgg réew mi di def seen liggéey loolu laa ci jàpp. mi ngoog leer na Zeyna. lu mhm. nekk lu am solo je pense mhm. euh, nekk na lu am am solo. et euh, ñu war a bàyyi xel la. ndax pour man presse warut a xeex ak kenn. presse warta far warta mhm. xeex mhm. man damaa gëm loolu mhm. li ngay wax wax ko ak sa aqulay taala li ngay liggéey liggéey ko ak sa aqulay taala mais euh, commercialisation bi ne ci biir presse bi moo yàq lépp maanaam business bi nga xam ne dañ ko ci dugal bedd ñi nga xam ne ñoom ñu ngi liggéey de manière correcte et que Ousmane dafa wax lu am solo muy gis nga lépp mu ngi tëkkoo ci wàllum koppar parce que autonomie bi nga xam ne moom la presse war a am pour liggéey maanaam liggéey ci li nga xam ne moom la sa moyen may la bu dee danga nga am euh, cinq millions mu lenn 5 millions mu nga ci fay salaire salaire cinq personnes par mm-hmm. par weer mm-hmm. yemal ci cinq personnes yi. mais da ngay gis dañuy dugg ci concurrence ba dañuy àngu mm-hmm. lu ñu mënul. après léegi nag boo àngoo lu nga mënul dangay ngay def loo bëggul. ki parce que ki la jox ay millions daf lay xool loo fi nga bëgg xool. loolu loolu mooy problème bi amul lu mu fayee. waaw donc amul lu mu fayee eh, gis nga Ousmane Sonko daf ko démb daf na détournement de deniers publics. Mm-hmm. Mm-hmm. parce que quand yow sa employé yaa ngi koy dagg salaire ñuy dund ci précarité bu metti mm-hmm. yow le patron de presse ngay dund ci luxe bu extraordinaire. yow ngay koy dagg ay impôts demal nga fayal ko impôt mais demal ci maison de presse yi ngay yu bari ngay xaw ku ci feebar doo am faju amaana sax boo tardé benn semaine benn weer ñu dagg la. Mm-hmm. dagg la sa salaire loolu moom ci presse bi dama laaj ñuy liggéey ci presse bi ñu ci bari.